نجي ورا تامبل ان شاء الله فيمي وخنان يحدث ما يشاء من خلق ومن ذكر فما احدث من ذكر يقن ان ليس مخلوقا لان المحدث الانزال اما الذكر فهو لم يزل الا له الخلق والامر العفو دل ان ليس خلقا ما من الامر نزل بل علم القرآن والإنسان خلقه علمه البيان ينسخ ينسي ما يشاء يبدله والله أعلم بما ينزل ويتكلم متى شاء بما شاء كما شاء لو أن الكلمة مداده البحر بسبعة أمد وشجر الأرض قلام ما نفد ورحمة سكت عن أشياء من غير نسيان على ما جاء نالا برم سبحانه وتعالى يحدث ما يخول ما يشاء القصاب من خلق تنبندف من ومن ذكر أكتي أي وخم لأن فما أحدث لنا خمنا يالا دانا من ذكر كي أي وخم yuqin yuqina ka sumia dañ koy wax ci arab yaqnan wa yaqanan wa ayqanahu wa ayqana bihi wa tayaqanahu wa stayqanahu lépp benn maana la yor bi maana alimahu wa taxaqaqa mooy xam na ko xam gu wér loolu mooy yuqin lan la bëgg a wax foofu ci li muy junju mooy ci sunu borom subhanahu wa taala di waxe ci ñaari barab ci biir alquranul karim benn bi nekk ci suratu al anbiyai verset ba ca des nekk ci suratu ashuara verset cinq yàlla ngi wax ci suratul anbiya ni ma yatihim min rabbihim ma yatihim min zikri min rabbihim waxdatin illa stamauhu wa hum yalabun من lepp lo xamne dik kena len joge ci sen borom min zikr ci ay waxam muhdathin باب باتوك احداث الله مهم مشكلة بفوق نلا الا سمعوه لول دغ نكو وهم يلعبون ني كونت ندي فوق يا وخات سوره الشعراء وما ياتيه من ذكر من الرحمن محدث الا كانوا عنه معرضين ندخ فوبا لي cay dégg mooy waxe suñu borom bi subhaanahu wa taala mbindeef la boo xam ne dafa faccantikoo ak jëmmam comme ni ñu bari di waxe di wax ni waxe suñu borom bi subhaanahu wa taala maxluuq la loolu moo fi indi alqawlu bi xalqil quraan mooy di wane ne alquraanul karim maxluuq dañ ko bind ndax ñu ne yàlla wax na ci alquraan ni ما يأتيهم من ذكر من ربه محدث إلا استمعوه وهم يلعبون من يكون محدث محدث موي اسمه مفعول لا موي لو ني صوص موي لو ني خيوال كون يالا دا فا خيوال ليغا خامني موم مودي اي وخام كون وبالتالي فكلامه مخلوق موني ديدت موني ان ليس نيكول موي يقنا ويرنا an laysa nekkul a zikru mooy waxe yàlla ji maxluqan di lu ñu bind ndax lan mu ne li ann al muhdasa la ñu xewal al inzaalu mooy wàcce ga al al inzaalu yàlla subhanahu wa taala dafa am lu mu wàcce ci muhammad sallallahu alayhi wa sallam muy alquranul karim ak lu mu daan wàcce ci ay yeneen yonantu moo xam tawrat la moo xam linjil la moo xam zabuur la wala lu ko soob ci ay jaam lam wàcce di ay waxam loolu sifatun min sifatihi melokaan la ci melokaanu suñu borom subhanahu wa taala waaye nag jëmmi wàcce gi ci boppam nag moom mbindeef la loolu la bëgg a wax moo tax mu ne an laysa maxluqan li anna al muxdas al inzaalu al muxdas laysa kalaamullah du mooy wax yàlla waaye mooy wàcce gi yàlla di wàcce ay waxam mu ne wa amma zikru bu dee alquran nag falam yazal dañut fa xadafa almansuba li jalaa'i maanaahu li nga xam ne moo doon xabaru la zaala dafa waroon a rot waaye mu rotal ko dafa waroon a ñëw laa bëgg a wax waaye mu rotal ko ngir xam gi ñu xam maanaa mi ay laysa maxluqan ay lam yazal dañut صفة لله عز وجل moom melokaanu suñu borom subhanahu wa taala foofu nag fu jafee tàqale la ci diggante waxi suñu borom ji subhanahu wa taala la cay doon bindeef ak la ca doonu bindeef fa la nit ki mokkal alquranul karim xafida alquran fa kaana huna alxifdu walmahfuz am lu ñu tudde ak mokkal ak la ñu mokkal jëmmi la mokkal lu al lu waxe lu lu lu lu def de waaye ak mokkal nag moom ñu def alxifdu maxluqun wal mahfuudu sifatu min sifatillahi azza wa jalla yatlul insaanu alquran alkarim nit ki di jàng alquran alkarim hunaka tilawatun wa matlu jëmmi jàng gi ak li muy jàng فالتلاوة مخلوقة والمطلوب صفة من صفات الله سبحانه وتعالى جمي جانبي فالصوت والألحان صوت القارئ لكنما المطلوب قول الباري ما قاله لا يقبل التبديل كلا ولا أصدق منه قيل قم الحافظ الحكم كن جمي لغا موقع الموم نكل نكبدي فاي جمي موقع إلى آخره من التلاوة والخط وما إلى ذلك moo tax mu ne an laysa maxluqan li an al muxdas al insalu amma zikru bu dee wax yàlla ji nag fa huwa lam jësal ay lam jutal sifatan min sifatillahi azza wa jalla kon noonu la ñuy déggee ñaari ay yi nga xam ne ñoo rot ci alquranul karim yuhim zahiruhu aw yumkin tawiluhu ala maana alxalq mooy ma yatihim min zikri min rabbihim muxdathin illa samaahu wa yalcabun وما يأتهم من ذكر من الرحمن محدثين إلا كانوا عنهم معرضين وني على حرف تنبيه لا على سكورا وحي موي تنبيه دفلي على ارتدال على له الخلق والأمر كم نيوي سورة الأعراف سنو سبحانه وتعالى دي wax jaam على دمني له نين يلا الخلق بنديف والأمر أكب دغال منوال عطف حرف عطف ببويبا العطف من حروف العطف بنقطة دقنت الخلق أك الأمر من حرف الواو الأصل في العطف المغاير ما تعملي wal asfu dalla xaraf boobu dugg ci seen diggante ñoom ñaar mooy tegtale ni an laysa xalqan ni mbind gi yàlla wax ak min al amri ci mbirum suñu borom bi subhanahu wa taala bokkul ndax dafa wax al xalqu ba noppi wax al al amru mu ni al xarfu xarfu yu dox seen diggante dalla ala al mugaayar loolu mooy lan boo ni woon جاء زيد وعمر زيد لدكنا عندك عمرو حرف بابو حرف لان حرف العطف لمطلق الجمع حروف العطف لا آه، واو حرف عطف لا واي لمطلق الجمع لا بمعنى لا يفيد الترتيب بين المعطوف والمعطوف عليه معنى دو ونني كي نجيك تدو مو في جيك تيو fiñu ñu mujjee tudd ci xasaa'isu waaw la bokk solo won Zeydu ñëwoon ak amru man na am amru su mo njëkk ñëw bi xilaafi fa wa thumma solo won jaa Zeydun fa amru dalla ala tartibi wa ta'qib day wone ni ki ñu tuddu mo tudd ñëw waye dañoo toftalo ki da ñëw rek ka ca dess top wa amma ida qulta thumma جاء عمرو ثم زيد دل على الترتيب والتراخي دا فاي وني ني دانيو تفتلو كي نجهك تود مو في نجهك واي كي مو جيني سين ديغنتي اب اب ديغنتي بو ياتو دخنا والاصل في العطف لا سيما حرف واو للدلاله على المغاير li ci santi atf moy day wonane bu ñëkk ba ak bu mujj bi bokkewut wa in istama'a fi دونت صاح لا لين داجالو سي اكتي بان يكون كل واحد منهما فاعلا مثلا جاء زيد وعمر كل واحد فاعل نيوم نيب نعم، نيو نعم، بوك داجاندو سي الفاعليه لكن زيد ليس عمرا موتاخ سي وخا يالا جي سبحانه وتعالى جيمي وخنا وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون ولم قام قام دا فام نيوخ الصلاه جلي ني بوكنا كأي معاني موي الرحمه يرمان ني كفير صلاه دعاء رحمه ان ني لهم لكن بدلاله القران من هذا الجانب اللغوي ديوان الرحمة ليس الصلاة الرحمة بقولك صلاة نحو واو دي عليهم صلوات من ربهم ببرا ورحمة والواو دل على المغايرة بين الصلاة والرحمة لول بقى اكسبليك فيه من ألا له الخلق والأمر العطف دل على أن ليس خلقا ما من الأمر نزل أي لي الله اللوات ما نزل من أمره ليس خلقا بدلالة حرف العطف عليه ما يوحي على جمني ألا له الخلق والأمر يلا ني بنديف موكو موم واي مو موم الأمر كل الأمر ما يدقل يلا أكي ترم أكو خمي لولا يلا دفع بير بمي تبلغ خاني مودي الخلق يلا وقنا في القران انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون فبات كن من كلامه بات كن في بوبم في وخي يلا لا بوك واي لامي دوغال نك لول موي مبيديف motax ñi nga xamni dañuy tok ñi japp ne isa doomi yalla la ndax yalla neena fa bi kalimatuhu alqaha ila maryam باتب يالله لبو مسن مريم نني عيسى فبكون كان فبكون كان عيسى دفع أميك باتب يالله وايد مو باتب يالله باتب يالله سيفتون من سيفاته عز وجل ليس هو الكن لكن فبكون كان تكون لأمي عليه الصلاة والسلام كن بيالله وخيني كن فلفظ كن صفة من صفات الله وأما المخلوق المراد به المقول له مخلوق ورغم ألا له الخلق والأمر العفو دل على أي أن ليس خلقا ما من الأمر نزل لو لم في تقل دقنت بند في الله سبحانه وتعالى أك لذي خاني صفة من صفاته القول بأن كلام الله عز وجل مخلوق بلازم القول أن يقول أن يكون الله سبحانه وتعالى مخلوقا بالتلازم لأن الكلام صفة من صاحبه وخنا القرآن من ديفلا ولا وخي يالا من ديفلا بالتلازم كنت دابا وخنا يالا من ديفلا دا كادو تموي وخ ملوكان لا كومو مانا دون موتا بحكمة الله عز وجل كان نورو لمو فأسمه nit ñi niñ tollu non la seen baat toll kuy judd da nga indaal sa baatum bopp man na ñëw lol lool ba jigéen nag waaye kenn sa baat du baatu kenn ak nit ñi niñ toll nag nangame milliard ku nekk baat sa waxin wenn baat benn la comme ça ba ji emprunté ngeen koy waxti suñ borom subhanahu wa taala noonu la ko programmé moo tax bu nit boo làq boo làqtu woon wala nit làqtu fi barab di wax boko ko ni waaw diw fegn la fi ñëw bi tabiatil xaal doon di gisoo lan nga deg ci mom ba tax nga xamni mom la moy ba baatam sawtuhu wa dalla ala annahu jisun minhu nga xamni koku len la ci len la ci mom bo soje sax ñu naa yow sa baat dafa soppe maanaam nam meloon ñu xamé la ko hmm même legui portable yi sax àgg na ci boo xamante ni soo ko dee tëj sa baat ngay jël mu enregistré baat boobu mu daal koy griller keneen munut te ñëw jël sa baat ak bu mu ko nuróo nuróo nurul ba wax ci ba mën a ubbeeku ndax sa baat benn la ci àdduna benn fa tabaarakallahu ahsanul xaaliqin naam من بل علم يلا مو لي القران القران والانسان خلقه بقي لي تفريق ديغنت الخلق من علم يلا مو خمل القران القران وخلق الانسان بلا نخي غني الانسان خلقه لانه من باب التناصر التناصر ولا الاستغلال الاستغلال لا تدرى ما هو الاستغلال الإنسان خلقه ولا الإنسان خلقه سوني الإنسان خلقه الانسان دا فاي نيك مبتدا جمله بي نيك غيناوام نيك في محل رفع خبر ما فيه مشكله بوني الانسان خلقه الانسان دا فا نيك منصوب بفعل محذوف دل عليه الفعل المذكور فعل بيغا تدو موكو فيري بمعنى خلق الانسان خلقه وبابا انا فعل الاول لابد ان يحذف لأنه لا يجتمع في معمول واحد في باب الاشتغال المفسر والمفسر وما فعل مفعول به ليدون الجملة الواقعة بعده ليس لها محل من الإعراب فبوك تجرم نار الجملة يجا خمني ديس للإعراب تموي الجملة التفسيرية قل والإنسان خلقه ولا والإنسان خلقه ونعلم ال... وعلم البيان يلا مو يوحتي القرآن الكريم ني الرحمن علم القرآن مثلا خلق الإنسان فأوقع على الإنسان الخلق وعلى القرآن التعليم بمي تدنك نتد بند القرآن متدو جانجلة تقول لي الرحمن خلق القرآن خلق الإنسان لأن علم القرآن فقرنا خلق الإنسان مرة إمام البغوي دفعني فلم يجمع القرآن مع الإنسان في الخلق بل أوقع اسم الخلق على الإنسان والتعليم على القرآن nee na yàlla bi muy tudd alquran ak doomu aadama boole wuleen ci baabu bind waaye dafa ne moo xamle alquran moo bind doomu aadama kon su fekkonte ne alquranul karim maxluuq yàlla du leen tafriq li anna hada yunafi alfasaha tamama kon yàlla dafay wax rek xalaqa al insana wala xalaqa alqurana wal insana masalan waaye dafa tafriq baynahuma ودل على أن التعليم ليس الخلق والقرآن صفة من صفات الله عز وجل masaayil yu mel nii nag soo koy nettali ak di ko jàng ñu bari dañu jàpp ni aqidatu munqarida wa mundasira amatut kenn fatatut lu mel nii jàng ko amul jariñ ah kay ma min aqidatin illa wa laha qawmun yactaqidunaha ila saa amul benn pas-pas bu mus a am ci àdduna lu dul ni am na ay nit yu ko fas xatta wa in lam yashuru biha donte sax ñoom xamuñu li ñu fas lu mu doon mais dafa am ay rawaasik ay cekal yoo xamante ni mooy des ci pas-pas yooyu ñooñu gëm amul pas-pas booy gëm jëlal al murjia ñi nga xam ne dañuy wax ne laa yadurru maa al iman tarku al amal nit ki su xasee gëm lum defatul yàlla du ko topp loolu pas-pas la bu bu ñu xam ay nit gëm ko est-ce que nit ñi jullit ñi sax amuñ ci bari ñoo xam ne pas-pas loolu lañ am da ngay dégg ñu naan la xool bi rek mu am solo ak xool la yàlla di xool bu man sama xool rafet man sama xool rafet wax yoo xam ne kenn xamul lu muy firi man sama xool rafet sama xol rafet na mooy yàlla xoolul man li may jëf waaye sama xol lan lay xool loolu xel na ngoon xol mën naa rafet jëf bon xol bu rafetee dafay reflété wu ci cëri mu wane ne xol bu rafet bi mooy dégager jëf yu rafet yi laakin doomu aadama dafay ngàntulu ci digganteem ak borom dafay ngàntulu bi maanaam li mu def xam na du du yoon daf koy teel a wutal rek ay ngant yoo xam ni xalaat na ne ëllëg nit dina ko fa laaj wala buñ ma laajee lii lu tax man lii laay tontu loolu mën naa jàll ci nit ñi mais du jàll ci yàlla maazira maazirahu comme ni ñuy sortu alqiyam ولو ألقى معاذير لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه والله المستعان kon loolu la nit di def boo ko jëlee ci yeneen yi qadariya ñi nga xam ne dañoo jàpp ni doomu aadama ji daal amul choix yàllaa ko forcé bu bëgg bu yàlla na moon mu baax day baax su yàlla na moon bu namee ci moom leneen ni da koy doon nit amul choix am na ñu ko gëm ba léegi am na ñoo xam boobu la ñu mooy bu neexoon yàlla kon sàngara du fi am mooy yàlla du fi am kon yàlla wàcce gi ko fi wàcce ça veut dire que ni daf koo bëgg su ko bëggul woon du fi ñëw am na ñu gëm loolu ba léegi xam ne ñoom jéemu ñoo mu xaawama mooy jéemu ñoo taxawu seen bopp ci dara pour protéger parce que dañuy jàpp lii ñu yàlla wàcceel ci lu mu bañ moo bëgg ñu def ko su ko bañul woon su ko bañoon duñ ko duñ ko sax loolu parce que te beneen wàll ba jabariya waxuma la sax ñi nga xam ne ñooy niti ordinaire yi mais ay jàngkat da dégg mbir xew ñu ne yàlla dogalu ko bu leen ci bu leen ci bu leen ci dugal yàlla loolu jabra mooy bu leen ci dugal yàlla nawxun min al qadariya mooy al insaanu yaani ko bàyyi boppam daal lu mu def yoonu yàlla néew ci ñooñ seen réer fu mu nekk موي التفريق بين الامر الشرعي والامر الكوني بير مي يالا بند ليب بايكو في خامني بند بي يالا بي موكو موكو في اندي اك يم تانني ديفال لين مكو فان تكفروا فان الله لا يرضى لعباده الكفر وان تشكروه يرضى لكم يالا نينا سو نين ويد يالا بغول كي كيفر yàlla ngeen sant ko la bëgg mais ku fi indi kéefar du moom ndax moom mi fi indi kéefar mooy ne bëgguma ngeen wet yàlla wax ne wala taqrabu zina innahu kaana fahshatan wa saa sabila bu leen jigee njaaloo ndax baaxul ku fi indi njaaloo nit ñi dañuy wax ne déedéet loolu yoonu yàlla nekkul ci d'accord léegi kon ku ko fi indi bu ci yoonu yàlla nekkul ñu ni ñun ñoo ko fi indi maanaam yow li ngay daw mooy dawalal yàlla loolu bi nga ci lu gën a bon loolu te mooy saxal ñaari ñuy dogal ci kaw suuf te loolu yàlla moom da koo dàq yàlla amul kuy dogalante moom ci kaw suuf loolu lépp ay pas-pas la yoo xamante ni nit ki mën na ko fas te du ko gëm euh, te du ko xam waaye ay rawaasib la ay desit la yoo xamante ni ay nit yoo ko sam dem seen yoon kon yi ñuy jàng yit nag jullit bi dana dem ba bis mu soxla ko muy benn obstacle bu nekk ci kanamam boo xam ne su ko jàngutoon mën na caa daanu te mën naa yàqu lu bari ci diine kon diine amut luñ ci bind loo xamante ne lu lu secondaire la loo xam ne dañoo ne daal lii bu boo ko jàngul du la wàññi daal amut diine lépp lu nécessaire la amul lu secondaire lu ci nekk wallahu musta'an naam mu ni bal allama alqur'ana wal insana xalaqahu wa allama allamahu albayaana nee na yansaxu yàlla mooy nasaxal yun yàlla mooy fàtteloo macha lu ko neex ci li mu wàcce yu baddilu yàlla mooy soppi wallahu yàlla aalamu moo gën a xam bi ma yunazzilu li nga xam ni wàcce na ko ci ay jaamam allahu yansaxu yàlla mooy wàcce ba ko ba mu sopp ko mu soppi li mu wàcc maanaam sax من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير يلا لنا ما يصب في لما صب القرآن الكريم أمن اللي تدعى النص شريع الإسلامي حتى القرآن وأي السنة إما نسق اللفظ وإبقاء الحكم يلا جلف بعد بكي بابم تأتي بدسفة لملني jam ku njaaloo ab aaya la woon ci alquran wa sayxu wa sayxatu ida zanaya farjumu farjumuhuma nakaala min allahi wallahu azizun hakim baraatu min allahi wa rasulihi am na ñu ni noonu la demee góor gu sangewu ak jigéen ñu sangewu suñu njaaloo nañu leen rey ñu dindi fa baat ba bàyyi fa atte ba wala ñu dindi fa atte ba bàyyi fa baat ba bari na ci alquranul karim yàlla ngi wax ci suratu baqara euh, te muy wax naan ci euh, ci diggante ñaari waajur nga am loo leen آه، فمن بدله بعد ما سمعوه فإنما اسمه على الذي يبدله ولا سمع عليهم لك جيدو آه، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اي بوب لك جيدو حقا على المتقين دنا نيو خمنا آية بوب دا جيكي داي وقتي لن يتدى الوصية للوالدين والأقربين آه، هم؟ هم آه. لا حول ولا قوة إلا بالله la <laughs> fa فلا فأصلح min musil jadafan moo ci topp fala كتب عليكم القصاص يا ايها الذين كتب عليكم القتل الفر بالفر والعبد بالعبد والانثى بالانثى ومن عفل من اخي شيء فاتباع مرة الانسان فمن عفل من اخي شيء فمن بدل هذا الله الايه بدل دنا نيو دنا نيو الله لا حول ولا قوة إلا بالله نعم الله المستعان القرآن ngi noonu day رك jekki rek waaye beneen aaya كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه والله سمع عليهم فمن خاف من موت يكمن يكتر yàlla damay wax ni képp koo xamante ni dafa am ñaari way nga am loo leen dénkaaneel ñaari waajur bay waaj a faatu nga ne ma faatu nañ jox sama yaay lii nañ jox sama baay lii loolu ci njaalbeenub lislaam lislaam daf ko nangu woon lu jiitu aayab miraas bi jox way jur ay cër di ñëw mais bi aayab miraas ñëwee ci suratul euh, nisaa yi aaya boobu dañ ko na yonent bi ni la wax suñ jetali waarisa ki nga xamantene dafa wara don lu kenn du ko denkanel pourtant ñu ngi jàng ay ba legi waye hukmuhu mansur hmm leg leg ñu jële fa baat ba comme niñ ko waxe leg leg ñu jële fa baat ba atte ba ak lafz ba yépp ñu ànd ba jële fa lolu tul an nasakh فان يعني ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها سنفو جلي أب أتي دانان إندلو تولني موم في الشدة أو مثلها نسخل الله يالا دي جلو أتي رامبلاسكو بلن أتي بغن ويف كم نوي سورة أنفال تخير ولو بنيو رامبلاسكو لغن جافي كم نمي ويتي كي والو كور من شهد منكم شهرة فليصومه kooku moom dafa loolu loo xam ne daf lay waral te bu jiitu lan la waxoon wa ala lazina yutiqunahu fidyatun taamu miskin fa man tatawaa xayran fa huwa xayrun lahu wa an tasumu xayrun lakum fa man tatawaa xayran aaya boobu dafa ñëw di nasaxal aaya bi ko jiitu bu njëkk bi lan la waxoon koor gi tànn teef la woon fa ala lazina yutiqunahu fidyatun taamu miskin ku bëgg a woor man ngaa woor ku munta woor nga joxe mudd booba bu njëkk bi loolu la woon looloo gënoon oyof waaye ñaaral bi mu ñëwee dafa gën a taw mooy faman shahida minkum shahra fal yusim fal yasum man kaana minkum man kaana maridan amul minkum de bu njëkk ba am minkum man kaana maridan aw ala safarin fa iddatu min ayamin uxar yuridu llahu bikum yusra wala yuridu bikum nasra wala tukmilu iddata wala tukabbiru allaha xaw ma nu mu ñëwati man léeg-léeg fi leen dafa mel ne aaya dañ may daw temps yi sonn rek wala aleykum taskurun axila lakum leylata siyama rafatu ila nisaikum naam kon loolu rek lañ bëggoon wax ci atte boo xam ne ci usul la gën a aju waaye li mu bëgg wax mooy sañteef ak suñ borom bi subhanahu wa taala ci li nga xam ne moom moo di yan sax nee na wa yun si léeg-léegi yàlla fàtteloo yonente bi salallahu alayhi wa sallam ci aaya moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu musaan di koy baamtu lu gaaw a gaaw a gaaw ngir bañ ko fàtte yàlla ne ko nag jërut ko ñoo lay jàngal alquran ñoo la koy sax te doo ko fàtte illa ma sha allah lu lu neex yàlla nag mu fàtte loo la ko moo tax alquranu karim rufia minhu juzun kabir am na lu fi nekkoon di alquranul karim ñu yéegalaat ko comme ni ko yaa Aïcha waxe ci wàllu nàmpal mu ni xam ngeen ni nàmpal fukk la woon ngeen doon ko jàng yàlla yóbbu ko ci juróom mooy xale bi nga xam dafay jigéen ji da koy nàmpal fukki nàmpal la woon pour ba mën a aram mu mën a doxale diggante ki koy nàmpal ak gone gi muy nàmpal ak mbokkoo ba xam ni xale boobu moom day mel ni ndaw soosu moo ko fukki nàmpal la woon ci lislaam fukki nàmp yoo xam ne xale bi day nàmpal boppam ba bàyyil boppam te dara du ko gaar ba muy fukki yoon bu ko xasee def aram na ci moom ñu daal di koy nasaxal indi ko ci lan ci juróom yaa aysa ne ngeen ko doon jàng ci téere bi yàlla bi waxal lu seex lu feex wa misluha kasirun fi alquran alkarim ala kulli xaal naam naam mu ni yun si yàlla day fàttel ma sa ma yasa lu ko soob lu ko soob sunu borom subhanahu wa taala daf koy daf koy fàtteloo ay jaamam wallahu yàlla wa yubaddilu yàlla mooy soppi lu ko soob yàlla mooy wa ida baddalna ayatan makana ayatin wallahu alamu bima yunazzil qalu innama anta muftar yàlla nee na su ma soppeeb aaya barabub aaya te yàlla xam di tax mu def ko ñun yow daal li ñuy waxatee ngi nii dangay ngay tatone rek ndax boo waxee lii tey bu subaa nga lee

yàlla na maay soppi lu ma neex ndax mbir yi sama loxo la nekk kon yàlla yu baddil wallahu aalamu yàlla moo gën a xam bi maa yunazilu ca la muy wàcc moo ko gën a xam comme ni ñëwee ci alquran wa yatakallamu mata shaa bi shaa kama shaa borom bi subhanahu wa taala yatakallamu day wax yàlla wax nañu alquran wa kallama allahu musa taklima yàlla wax naa ak يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم فلما أتاها نوديا يا موسى إلى آخره فوق في القرآن ممكن تيجي وكان خبر نقول تيجي يلا دي نوخناك موسى وخناك كل موسى تأي ينطم أي ملاكة موسى سخل صفة الكلام لله عز وجل وعليكم لم يكن متى شاء سايت كفوا بلاي وخ صفة فعلية وكل صفة فعلية متعلقة بالمشيئة بخلاف الصفة الذاتية بيب ملوكان بلون صفة فعلية لا فهي فاي اديو سي توباري ومنه الاستواء ومنه الكلام ومنه ومنه كثير كون سي توباري نداي اديو متى شاء واي بما شاء لاكو صوب واي كما شاء قم نام كو صوبي سبحانه وتعالى يونس بن صلى الله عليه وسلم وخنتي حديث بوخان ابو هريره مكو نتلي مو نيو سي صحيحين من اذا قضى الله الامر في السماء ضربت الملائكه باجنحتها خضعانا لقوله كانه سلسله على صفوان فاذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير nee yàlla subhanahu wa taala buy wax yu di dogal nee na malaaka dañuy dóor seen laafi ci suuf nee na comme ak seen ni muy mel buñ ko dee dóor ci aw xeer wu wow tasabbu tasbihu nag du wax yàlla lañu tasbih la nuro lek ak seen lakin wajhu sabahi bayna salsal bayna silsilati wa sawt moy ak tadaru wa quwati darb هذا هو الاكتشاف ما نمي دوري نونو اك تو لمي ام لول لي نورولي واي نورولي ول واخ سن برام سبحانه وتعالى اكو سين بني دور تي او دج واي تراي با اك تدارك بمي ام مو تشو سمح بل الله لان فاذا فزع عن قلوبهم سن دمي با واخ جاج يخنا قالوا ماذا قال ربكم من لو يلا واخ قال سي عرب من تكلم ماذا قال ربكم يقول ماذا عبر ربكم لا ماذا قال ربكم صريح مثل بروح قالوا الحق وهو العلي الكبير قالوا له صريح دلالة لا يمكن تفسيره بأي شيء لأن الكلام يحمل على حقيقته كلام دنكو فيري ننكو بروم وخي إلا أن تقترن به يقترن بقرينة تصرف عن قصده عن قصده يعني كن لولو دايوان يونتبي صلى الله عليه وسلم واخناني في صحيح البخاري حديث عدي بن حاتم من ما منكم من احد الا سيكلمه سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان نين امول كين تي ين كودول يالا الله يوم القيامه دانا واخانتك موم تكوي فيري دو فاني كين لولا فيري واخ يالا يكلمه واضح ليس بينه وبينه ترجمان kenn ku lay firil du fa nekk wax ma nag ku lay jëlal intervention bu amul ku lay traduire ab interprète boo xamante ni day am ci attekaay de ah ñoo xam ne ay interprète la ñu doon ki nga xamante ne dañ ko inculpé bu ñëwee te fekk na moom mënut te dégg làkk wi ñuy wax interprète boobu moom la ñuy moom lay fay mu di ko waxal li juge bi di wax waaye yàlla loolu du fa am nag amul interprète bu ñëw naan kii maa la fay <laughs> jot lil de إن لم يكن هناك ترجمان الله المستعان نقول كنان كوي نيودي دم انترفانسيون دينا نعم موتا موني لولو لو ولن موني لو ان الارض دو بو نيكون لو ان الكلمه بودون بات يالله نعم موني ميدادو بودونون ليغا خامتاني موم مودي البحر géej ya midaaduhu di daa yoo xamante ni bi sab'ati abhurin umid taqdimul wa taxir géej yi yàlla yi buñ ko dolli waatoon juróom-ñaari géej wa sajarul ardi nee na garabi suufi xilaamun di ay xalima maa nafida nee na waxi yàlla ja du du jeex la ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم يا الله سبحانه وتعالى نينا وفك كونتني غرب ينك تي أدنى يبدنك وصف أي خليم جيج يني صف كو جروم نياري جيج دولي وات nit ñëpp di xëy di bind turi ya wax yàlla yi géej gi dana jeex xalima yen damm te wax yàlla yi du jeex ndax lan mooy yàlla amut fu mu yem yàlla amut fu mu yem ay waxamit dara mëne su koo mënu koo takk mu ni wa rahmatan sakata an ashiya wa rahmatan ci yërmande moom yàlla sakata la noppi an ashiya a ci mbir min gayri nisyanin ci lu ak fàtte ala ma jaa comme ni mu ci xadis برمي سبحانه وتعالى سكت عن أشياء كثيرة رحمة منه لو باري باري دا دخل تيال داخ لان يرم ما يونت بي صلى الله عليه وسلم أن نين كي أب اك نيوم بي مو ديف اوب باكا موي فك مير يالا نوبي جا مو ديكو لاج ديكو لاج ديكو لاج با لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسألوا لو يالله نفسي بولين تا واخ ناخ بولين تا واخي مانا اني مسو من ربي سيون تبي صلى الله عليه وسلم صنع تانغ بامير ني لاج لين ما لو ما لاج واخ لين ام كو نيو نيكو ناخ كوي سما باي مونوكو ديو تا كوكا كات لو وون بايام بام دون اسكانو سلا يالله واتي اي بي ني بولين لاج اي مبير يو خاني بوغي كو خامي مو اندي لين ديو kon lu yàlla noppi nañ ca noppi waaye gëstu ak jeex l'islam daf koy tere yonente bi salallahu alai sallam ñëw na ci xadis boo xamante ne am nañu ko jëm mu ni farada al faraida fala tudayiuha yàlla dafa farataal ay mbir bu leen ko sànq wa xarama xurumatin fala tantaki tantahikuha mu araamal ay mbir bu leen ko xott wa xadda xududan fala taataduha yàlla wut ay frontière bu leen ko jékk وسكت عن أشياء من غير نسيان منبك أي مر تفاتيو كبني فلا تبحثوا عنها وتا لب لو خمني يالا نوبي نتي فراتالو كو وخوتي بو تي واخي دي يا غاي بغا توما يالا داخ وما كان ربك نسيا يالا فاتيو لب لو نيك سي سام خال باغني لي لو باخ لا تيون نيكو ديف بو نيكو ديفون مو باخ داخ يالا داكو فاتلا ني لاك tontu bi mooy déedéet waaw ndax da nga gëna xam yàlla lu baax gëno xam yàlla lu baax te yàlla fàttiwu wu kon yàlla noppi gim ci noppi rahmatan minna nga tax nit ki buy xuus bay def luñ ko santut man na def lu metti lol te bu demé yàlla bu ko fay ndax santu ko ndax yàlla wu fàttiwu wu ñewat na ci benen hadith يرتبي صلى الله عليه وسلم مني ما أحل الله في كتابه فهو حلال ليلا دغن الكي تيرم بي مودغن وما حرم فهو حرام لم أراما لولو أرام وما سكت عنه فهو عفو نلولو أنجيك فاقبلوا من الله عافيته manam njëggalul yàlla nangu leen ko ndax wa ma kaana rabbuka nasiya ndax yàlla fatiw yàlla du fat kon lépp lu mu dogalut ci ñun farataal ko ci ñun da ko da caa ndax banu israël lama saddadu saddad allah alayhi qul lin yàlla mi mu jëf leen tek banu israël ci bi nga xamanteni rey nañu bakken wa id qataltum nafsan fadaratum fiha wallahu muxrijum ma kuntum taktumun lan la leen Moussa waxoon inna allaha yamurukum an tasbahu baqara yàlla ne ni ngeen rey aw nag bu ngeen ko reyee yàlla dekkal ci kii dee lu ñu wax xaalu duna rabbaka yubayyin lana maa hiya waxal ñu yàlla wax ñu bàq قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون يجيك بلين يالا نينا أو نغلا وخمني أول ولولا مجتل نيكو الخل عوان بين ذلك قال الله نعم بيدين فدع لنا ربك يبين لنا ما لونها وقال يالا موخنو بن كلور ليوم قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تصور الناظرين يلا نينا أو نقل يدون وخم وزون لا ورفت وقس كونتان باتي تقول بايدا قال دعنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون وخم يلا نوخم كيوايا نمتمل نقل نقل نقل نقل قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تصير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيء فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون من لين أو نقل وخمن تاني دو ليجي دو صون دي سكو تاك ماشين دو ليجي ني ني ياغي دوغ واخ دغ وما كانوا يفعلون يالا توتي كون صاح دنجو ديف فلما شددوا شدد الله عليهم ba ñu taray ca seen diggante ak seen borom yàlla taral ci ñoom te borom xam-xam yi wax nañ ni ba leen yàlla waxee ni leen rey leen aw nag nag buñ mënoon a rey rek loolu day daal di wér waaye bañ fa nekkee di wet ci wettilante ak yàlla di waxal ñu lii defal ñu lii defal ñu lee waxal ñu lii yàlla nag topp leen ci loolu ba nag boobu bala ñu avant ñu koy am alal ju baree baree bari la ñu génne ngir mën a jënd nag bu mel ndax nag bu zone pour nga gis ko problème la wu musta liggéey di aw wëllu <laughs> sëñ bi loolu te lépp ñoo ko teg seen bopp moo tax ma sakata allahu anhu fa huwa afwun yàlla lu mu noppi rek noppi ca ndax boo gëstoo ba yàlla taral ci sa kaw doo ko attan te ummatul islamiya yàlla dafa bokk ci lim ñu defal mooy al ya nekkoon ci banu israil seen jëng yaag seen coono yëpp yàlla teggal ñu ko muy ummatu rahma lépp yusrul kon xam naa ne foofu la ñuy taxaw ba dellusiwaat wasalaatu wasalaamu ala asrafil anbiyaai wal mursalin نبينا محمد وعلى آله والصحابة أجمعين وربنا الله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم